bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baaraka wa majjada wa sharafa ala almabuusi rahmatan wa hidayatan lil alamin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain xadaraati saada ixwaani axawaati fillahi billah niyaabatan anil xalifati aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo di bismillah di santati bu baax ci daje bi ñu may daje woon defe naa daje woon ngeen ca waaw ba mbokk yëpp daje woon nañu usra bi daje woon nañu waxtaan ba pare mu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni mooy am incha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ la tëj jàkka yi yàgg ca mars ci kañ la ñu tëj jumaa yi mars booba wuñ ci ak ayit yi fi jaar korité tabaski yépp tabaarakallaahu dañ ko aj li ñu jublu lan la ci diine bidaa mustaxsan moo salaatu bu gën a dëgër kon waxtaan nañ ci ba pare ak kaaba gi sax màkk téere yi bind nañ ci lépp bind nañ ci waaye sëriñ bi def ni comme que waxtaanoon ngeen nañu yëg ñi rek Tiwaawan du gàmm Tiwaawan du gàmm buñ demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye daf ni ma nañ ko gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ca Ndakaaru jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan incha allahu du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekke nag ay at ci kanam muy ati yokkute ak susura ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi di nga ci gis ngànt yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga cee sukkandiku ba du am te dañ def waxoon sax wax dina yam foofu boo delloo ci alquran am na lu mu ci wax waaye boo demee ci médecine yi fi toog fas alu in kuntum la taalamun waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamuñ fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi insha allahu ba déwén ñu dee gàmm ñu gàmm insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh